bés bi la jour moom xew-xewu jamono la daal di ubbee subaak tey gile ak mbir mu doy waar ñi bëgg defa def wéy ci réewum Sénégal du leen nag lu dul góor du projet ci ñi nga xamante ni ñoo di jigéen ñi ak coow lekk fi mu yegg jamono jile gëstu bi ci yéenekaay gile doon na groupe E-Media Invest nga ci yaatu lool dugg na ci biis yi ak tata yi ngi rek jox ci kàddu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi diggante góor ak jigéen am nañu xelmati ne lii moom su wéyee bu nekk nañu jàpp ne mbirum góor jigéen wala bokk jigéen góor moo fi suuxatu ba faw waaye tamit woyefal lépp lu di wàllu ko gëm-gëm ci mbirum diine ak lépp loo xamante moo di wàllu ko caay-caay ak mbandaar yi doon it loo xamante ne docteur Massamba Gueye jàpp ne lii kon bu awee aw yoonam mënees naa jàpp ne li nga xamante moo di wàllu ko sëy moom dafay daal di jeex ci réewum Sénégal benn jigéen du toogati ci néegub sëyam mu doon loo xamante ni tamit aw askan wu sànku lay doon waaye tamit doon it lu fi jëmale kanam lépp lu di wàllu ko ak ay jigéen yoo xam ne dañu oyof seen sër di jaay seen bopp maanaam ci gàttal Sylla animateur la ci rajo di may xel loole ne projet góor du jigéen nag du waxi dara ndax it am na ci loo xamante ni moom dara yokk ko fi lu dul ay jumtuwaayu xarala yoo xamante ña ngi koy jëfandikoo ñoom jigéen ñi ci seen i awra ngi rek mën a am li nga xamante ni moo di bànneexu sëy ak lum ci man di doon projet pa jigéen moom warul nekk lu dul sëy ak ak njabootam doon gis-gisu ki xam-xam màcc wàllu ko diine doon oustaz Taïb Socé Sénégal ak barigoy ak tànq gi les échos yi ni kay di dugg ci wërga lupp réew yi nga xamante ni dañuy tànq wàllug pétrole tey nag di ko jëfandiku loolee kon na bàyyi ko ci Sangomar ginnaaw rek weer bi nga xamante ni nañu ne pétrole bi tàmbali na feeñ ci réewum Sénégal suñu naataango yi ci journal bi ne wàllug njënd njaay pétrole bi war a tàmbalee dox ci diggante Sénégal ak yeneen réew ma ngi ci daal di misaale Pays-Bas Allemagne foofee la ñuy seggee wàllug pétrole bi laata ñi koy jaay son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey jilee dana dajeek taskatu xibaar xamante ni ñoom ñoo di askan wi dafa ak ni ñoo di askan wi ko soxla lool seen upp a ko ci limfu yi ni kay ak nguur jeex rek njaboot bëgg tasaaroo tas tasar lii moo dal njabootu ko fay sàll doon njiitu réew mi foon Macky Sall ak gorom doon Mansour Faye ak rakam Aliou Sall mi nga xamante ne dugg na ci coow li jamono jile maire bu géejewaay ba woon nag ay xeer la dal joor ki nga xamante ni moo di Mansour Faye ci yéenikaay gi di Le Quotidien ma ko bind ni moom maire bu Géejawaay ba woon jàpp na ne kii di Mansour Faye daal ab warkat dëgg la te loolu moom lay doxee di ko waxee bokk na ci la mu lay leen mooy sabab bu njëkk sax mu dal di faxe fi nga xamante ne moom moo di ci APR ndax moom jàpp na ne lay Mansour Faye di doxee ak gis-gisam dafa daal di waroo lool ma nga naan fukki at ak ñaar yi magam def ci njombaxtalu ko nguur gi lu dul ñetti yoon rek la mas a toog moom di waxtaan ñaari yoon la mas dem fi nga xamante ni moom daanaka ci ay ndaj rek lay am lanteeg moom moom Alioune Sall nag mënul baal beneen ki nga xamante moo di soo Faye ndax jàpp na ne lu dal Macky Sall rek meex gu diwaanu ko ndar moo ko koy yóbbee ngir xadaram ak ñàkk wegeel ci doomu aadama yi laas yéeni kaay mu nga àkkee ji ci caisse de sécurité ak sociale ak tojange gi nga xamante ni moo fa amal jëm ci wàllu ko lubu lu ko koppar mbir ya dem na ci benn pa milliard bu tegal juróom-ñett fukki million ci suñuy koppar lii nag doon lu war a leer ak liggéeykat yu dal di fippu ngir jot seen alal joojale booba tey nag kilifteefu ko kër ga ci junaloo dëgg la ñu dal di nekk ak tojange guna mel nga xamante ni ñu ngi ko fay door a gis loolee nag awagul yoonu nax say ak yoon mi nga xam dal na ci defee nu ngi rek dal di koy leeral wàllu tàggat yaram fa la dal di teeralee jekk waajtaayu kan bi gaynde yu jigéen yi dajeek léopard yu république démocratique du Congo ñi ngi daal di tàqalikoo ci benn bal ci dara loolee jëmoon ci jongantepp xaritu ak ndam lu mujj des ci rem Sénégal jàng nañu ko ci wiw sport stade yi ni moom ma nga ci waajtaayu ko Jeux olympiques yi Paris 2024 jëw yi ñu dénk wàllu ko ndaw ñeek tàggat yaram ak lépp lu di wàllu ko caada xam ne ñi nga xamante ni ñoo war a teewal réewum Sénégal qualifié di xaar ba noppi ca lu ni mel dootul moo di njiitum réew mi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye